ña da xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi nañ ko Mustafa ña daa jamar ak ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Mustafa si te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farje ki Moustapha ndax sagub lislaam jëpp la ñëw moom nag wére diggi rek xam naa mooy te ngeen di ko gis fu ngeen toll waaye waxtu wu ne xolam a ngi fii fi yéen ñu ngi ñaanit ci seen darajey maam ngeen ñaanal ko ba mu am wérub gum leen mën a liggéeye moom jabatuk Cheikh Ibra gi ndax ñoom amuñu kenn ku dul kon bu sañoon rek am wér gum leen mën a liggéeyale jërëjëf Mbacke. jox ko Cheikh Moustapha euh, gannaaw bi nag Serigne Cheikh it soññi wuy juróom sëñ Ibrahima njaay Cheikhul Khadim bañ taxawal daayira bi mas na maa ànd ak ñoom ñoom ñii seen way jur ya ñu def kaar bu mag ñëpp di ay silmaxa ak seeni doom ñu dem daaru naym fekk sëñ Aliou yendul ko ca daaru naim mu teral leen loolu jox leen turu saadatu daarey nii ba léegi nag ñoom ñi màggal gu jot daanaka bis mooy seen bis ñett fana barax ñu ngi koy fonk lool lu am ña ko cee def ñoom njaboot ga yëpp daal ñu ngi ci liggéey bi fonk bis bi nag mosuñ ko jënal ba tey ñoom moom mii ak ñi mu àndal ñëpp ak bokk yi ca France ak nday Xadi Njaay ma ca France moom it bokk ci ñoom ñoom ñëpp daal ñi ngi ñi ngi ñi ngi ca la la bàyyee ne woon ak ak maam ya ñu lay siyaar bu baax di fàttali seen siyaar soxna Xadi Njaay tabaarkalla am na am na benn nee di xool nu ma leen di xoole bi ngeen di dugg bàyyi naa xel lool bàyyi na ko mu ni nee ci turu sëñ ma sëñ nee jëwriñ sëñ Mourou Amin Tafal ne ñu ngi ñaan sëñ Fallou mi toog Cheikh Amadou Makhtar yàlla yàggal ak tundam te wéral ko waaye turu jëwriñ Cheikh Rafal ji mooy sëñ Cheikh jëm mi maam Cheikh Ibrahima Fall tey ne moo ko tax a jóg de ne yéen mur yi ñu fi fekkit nag ne bu leen neexoon noppalu nee bu leen tënk seen xel mi bu leen ko wutlu bu leen wutlu xel mi wutdu bàyyi leen xel mi dox nee da di yërëm jëmm ji toog nee dañoo ci jamono boo ci amee loo xam ni lu la jafe la fa sunu boroom mu sunu boroom baaxee la ko nee da nga koy sakkanal nag. ne bu ñu neexee nun ñëpp nu maase yegg suuf waaye nun luy suñu yoon ci jox ko loxo bu ko defee nu mu noppalu nag noppal ko rawatina bi jëwriñu Cheikh Rafal di yegsee nga xam ne mooy ndawam nga xam ne murit bu fi neex rek bu la neexee noppalu ndax loo fi def ci gii kër Cheikh nga ko defal ndax lépp kër gi Seex Ibra Faal la kon bu yegsee kum neex nopp la ne yar beeg teggi nii nan ko dolli tàmbalee ko ci bët yi di xool fi suuf boole ci làmmiñ gi di wax ndànk rek yar cër yëpp waaye fu la neex xool nu la neex waxe nu la neex def sab cër taxul yoon wi yegg si fii nañ bàyyi xel lool nag coow li jëru ko ndax fii wax du fi jariñ dara jëfe fii joxe ba nga yore sedd ya nu mu gën a suturloo nag noonu la gënee noonu la piitam nga ñëw ba jege sëñ bi tàll sedd ya mu nangu ko jëru joxe la mi ngi dal mi ngi daw mi ngi daw rek ne ma nga bàyyi ko ci liggéey ba nag Mbàkke doon siyaar si rek waaw bi ne jërë ngeen jëf ne ngeen nuyu ko sëriñ Cheikh jëmb may maam Cheikh Ibra tey ne moom day mi ngi koy ñaanal fu mu toll yàlla yokk wér gi ak fan wi ne xam nañu nag yëngu wi ngeen di yëngutu yëpp nag ne yéen kat waa Kër Cheikh Rafal yéen a ngi ci liñ leen bartaleeroon ne dara dellu ci ginnaaw kanam rekk la jëm ne kon kanam rekk la jëm ne jëf ji kanam la jëm pas-pas bi kanam la jëm. kon na ngeen nuyul kooku bu baax ne ko sant nañ ko bu baax barke sëñ amin amin amin amin amin